def lépp lu ma sax waaw waaw def naa def sànneeku yaa ma ko jaral sama jaral te dama kontaan waaye da nga sonne ma ne sànce sa kër ba mu mel ni jàmm ak salaam waaye da ngay sonn doo nelaw ba mu mel ni suul ak bëgg doo nelaw waaw bokk ci keroog la nga yor am na syndicat wax ne ay kudd rek ak ay couche yi dama si kanam waaw kii moom ma ne. may leen ñu liggéey. ay ca ñu ñëw ci deuxième attaque. parce que amuñu ne man eh, sama fan amuñu ne man sama kii amuñu ne man sama. nee nga ko demal solo waat te ñëw. ah. cooraaleel gars yi ci ginnaaw. yaa ngi ci 100 gars yi ñëw nii. kii nag euh, waa guy waa guy mbind. Ah? nga deuxième attaque. vers jàmm laa fee gars yi nee nañ fi ci vers lan la deuxième attaque bi kase ko ak. koor bi ah waaw waaw waaw kuloolu lislaam la jàmm kuloolu lislaam jàmm la mais Adja ah, est-ce que xam nga ñun ñi jàkkaarloo yow ñu la filmé dañoo kontaan ndax dañoo xam ne li ma wax du dañ de lii lu ko waral li nga sañse nii mooy lan ma ne li nga sañse nii mooy lan tisi bii mooy ban tisi lii de tubarkalla lii moom miin na ko miin na ko waaw waaw gaay génn waaw waaw waaw ñii waaw waaw. feet gi daal ñun daal ñu ngi feet. waaw yéen a ngi feet moom. sëñ bi santaane màggal feet la ñu ngi feet rek. waaw di di bëggee di bëggee di bëggee ndamu Sëriñ Tuubaa gi. waaw ba suba rek ngeen ko jàpp ba suba. incha allah waaw est-ce que yaa nee na lii ndamal Sëriñ Tuubaa la. waaw. tubaarkàlla macha allah nii la koy jàppe daanaka ba bés bi dellu si. waaw te nag. Hmm. boo liggéeyalee ku yàlla gërëm. yàlla day defal lenn. Hmm. ku la gis sopp la hmm. te yow ñii nga bokkal kenn ku ci nekk nga tarbiyu ko ba làkk ngërëmam tubarkàlla moo tax ku yàlla booleel ku ci nekk yu bu dëgg lay dégg soxna ngoy nag olof njaay dane askan wur fépp am woy waaye jamaa tegg tuur ba nga ni soxna ngoy nag mm. kenn la moom la yaakaar moom la doyloo ginnaaw yàlla boroomam ca kat koy doyloo ak ba yaakaar xamuloo ni bokkum borom këram la mm. booba lii lépp ñëwagul yàlla mi nga xam ni dara jeexalu ko di cenkam soxna ngoy di cenkam sëñ askiya ba boole leen ñu doon benn sëñ jaay ngi Tuuba mm. Cheikh Abdoulaye lañ koy wooyee mm. sëñ Bambaani am naa yaakaar ci moom sëñ jaay ngi Tuuba Cheikh Saliou Fat Jaxate sëñ Bamba ni sama doom la Saaliha fi ak jiw gi daje. Mm. sani a yi ngi Touba. Mm. Cheikh Abou Madiane lañ koy wooye mm. mooy jàngal ñi fi raw. tubaarkalla macha allah moom la doomi Serigne Touba yi daan gane ci. samaam ma nga sunu dëkk. moo tax sa jaxate lañ koy wooye mooy bàyyi Amsatu mooy bàyyi Abdourahman mooy bàyyi Mbakke mooy bàyyi Balla Paate mooy bàyyi tubaarkalla Soxna Faat mooy bàyyi soxna Mariama tubaarkàlla macha allah Fateeg Mariama ak Aysatu kenn ku ci nekk tëgal na sëñ Bamba reer. cey li doon ci Touba ku ko dindi Touba jeex. la da nubi ni Touba waaye nag doon diplomate international. jaxase ndox dina tax à travers le monde entier réew mu ci nekk wàcc nga fa. te nag Cengiz Kia ku fi mas a nekk ci réew mii jiital na la ci kanamam. waroo ko ginnaaw waroo loo ko ma tabax mu tëj ci bëtam fu mu bëgg a àgg àgg na la gardien de la constitution l'homme de la démocratie premier magistrat Raba tubaarkalla kor marem bàyyi Amadou aka xamoon yaay kan ku ma si jëm yow la àndal yow la ma si jiital yow la ma si jéglu te ma ku digal dara ñu koy ésegal sa soxna si baax sii nag di ajaratu ngoy faal dama ni lingeer fu ma sa takki rek kër la wàcc. derrière chaque grand waaye Linguère baa ngi nii te nag boo jéggee tubarkalla macha allah sëriñ ak ñaan gi. sàmm ku ma njàpp góor ñu jogom teeñ yirim am na góor jeex na yirim ma sàmba mbay mbayaan ma sàmba rakkam mbay mbayaan ma sàmba laa la jëy tuubee tubaarkalla moo noonu tubaarkalla ma sha Allah dërëm yi la bu toor dërëm ko waaye wiccu ma maskiya sant naa tubarkalla macha allah soxna Ngoy sant na waaye nag tubarkalla soxna Ndey ni soxna Ngoy hmm. ak ni mel Cheikh Saliou Fat Jaxate sa maam ja tubarkalla sa nijaay ja moo la ko fayee wallaahi Cheikh moo la noon loo bëgg lu ne dalay yomb li nga gën a bëgg tubarkalla macha allah kii moom la moo tax mu yomb la Serigne Saliou moo la ko ñaanal fagg teefug Serigne Saliou la sa loxo yii nga daan fab du ko di bës njabootug sëñ Bamba gi bu guddi gi xaajee ñuy waxtaan ak moom la yàlla yàlla fay liggéey bii nga xam ne a travers le monde entier kenn ku ci nekk ñeen bu yem ci say loxo toog ci sa penk tubarkalla benn bis lay wootee màggal gi la tubarkalla ci lay bernde ci lay teral nit ñi ci lay teralanteeg nit ñi ci lay yeewe nit ñi tubaarkalla macha allah nii la yàlla def ku mu neexul yërëm naa ko xam nga lu tax te ku mu neexul dafa dangaa mel ne ku wan posan xam nga wan posan mooy lan tubaarkalla boo ko noyyee mu rey la boo ko wanaa soo mu rey la foo jëm tubaarkalla dool dangay àgg fu la neexul ndokkale waajaangi waajaangi kontaanoo de ak jàmm moom nga dégg daaw daa amoon am naa ne kontaan naa ne te audio sax moom day xam audio ko noo de ay ci jàmm mbay mi ñu naa ñu boole ma soppe la sama xarit la noo de ay ci jàmm la anday moom la ñëwagul sax nga nii de ah Touba dafa am xam naa dafa am aar ko dina ñëw léegi dina ñëw léegi maa ngi nii rek delloo ziar yaa ngi ci jàmm. macha allah bu la gërëm bu la gërëm. waaw sëñ Paar. kii na ma sama. nga xam ni buñ ko teggee ku nekk fekk sa soxla. te bu ma ko jox wala ko waxee dama ni man day jox sama soxla yi ñu ko jox ko teg soxla maa ngi ci. dina am sa jàmm loolu si fulla sa fay la madame Barché ngi nii taxaw borom bind beeg feef bi tubarkàlla bu jubal lépp. waaw Ariel la. waaw une minute une minute. dinga màggee baax waaw mel nii nga mel waaw day nii nga day waaw sëñ Bamba képp lay génn képp ak sëñ dinaa ma xam na waaw waaye nag amaat baax nag am ngërëm sa borom kër lee waaw dee la gerte waaw ajatu koy faal mi ci jëm waaye ajatu ngay faal mi ci taar waaw juddu bu rey ngay baay waaye fu lak fay de borom lii nga am yaa ko may sa bopp moo ko liggéeyal boppam yow demoo fenn déedéet demoo tuur. déedéet. demoo ngénte. déedéet. demoo xew. déedéet soluwoo dem fenn. déedéet ngi takk sa laxa takk ko dara laa gis keetu la. moo taxit suñ bamba képp lay génn. kese ku la bëgg a gis. waaw mbaa ku la bëgg a naw. waaw mbaa ku la bëgg a wax lu baax. waaw mbaa ku bëgg fett dañoo ku kóolere. waaw bis rek lay génn. ma faali ku ma daa ma dégg bi. balaa dégg fukki barag ñaar tàkk borom yaay yu baax yi faana la borom baay yu baax yi kor sa baay gërëm na la sa nday laataa muy dem sant na la gërëm na waaw ajatu ngoy fall mi ci lamb bis bi ajatu ngoy fall mi ci ngor gi ak di dubray ndey ak baay waaye fulaak fay de borom ñi ngay mel nag en fii te gàttaay waaw liggéey ndey marchandise te korog la pet sa ndey ko lii nga defal sëñ Bamba damel yombul yàlla yàlla guddal sa fan. Ismaïla Mbaye waaw maa déparé woon sama fekk waa juróom bu baax mu ne maa ko jur waaye gërëm naa ko juruma ko moom képp waaye sagal na ma sikkil na ma teral na ma ma faali ku ma ndaa ma texu balaa dégg fukki bala ñaar tàkk jëri ngoo ne maa samba ak faali ngoo ne maa samba garsugaa bi ngoo ne maa samba doo sopp ko doo saana nii ngay mel aw bii or bi ngay takk sa xolom gën a leer nga baax dal alaaji askiya Touré gor bu màggal Touba jotee boo génnee gën ñëpp boo génnee ñëpp xam ne Ajaratu Ngoy Fall génn na li Ismaïla wax léegi wax na dëgg Ngoy Fall demul tuur demul nag demul fenn yaa ngi laxasaayu rek dan alaaji askiya lu mu mës a dégle sukul da yaa ci mën gaa yëpp jamono boo génnee gën ñëpp Ajaratu Ngoy Fall gos yi waaye moom maa ngi leen ku ma jogo maay ma faali ku ma ndaama tënk balaa dégg fukki bala ngaa tàkk jëri ngoo dama samba faali ngoo dama samba ndax ci daa bi dama samba yaay waaj sama aaw yaay waaj yàgg Ismaïla Mbaye sama rakk yu baax yi bu ma leen fekkee fii ci ngoy ngeen fekk ma fi sa laay wax def naa fi ñaari waxtu lu teg sama yaay dama sàmm laa dal mi ngi ci da nga doon julli waaye wax leen ko loolu la yaay buti gawe yu neex nee fii nga def fii sa yaay bu baax da dëkkoon te ga la macha nga defar ko ba mel ne pale ngir dimbal say aju ne looloo sedd xolam ne na taal ko fii waaye bala laa ji Moodu Mbaay sa géwal sa rak mu njaay du ma la nuyoo loxo kese ndax yóbbu ma la ndax ku am fit nga ku am jom nga ndax turka la macha allah am nay doom xolub mee rawatina di may géwal loo xam yow sa ma law bee ma sambaag soxna faal soxna jang maa joxe diggéen kon maa sàmm nu faal sa maam jaxal biram guñu damel maa joor damel maa sàmm la ba tàkk su maam waaye njàmbur nga dëkk ñaari yoon indi laa la fukki paquet ndox maa ko barkeel loo teg naa ci juróomi paquet boisson ak xeeb ko ndax su a war calculer li nga ma fay aw ma lu ma la maye ak di ñaan yàlla ak di ñaan yàlla nag yàlla baam doom bi mu tuddee waaye nee naa ko njàmbur dëkk ñaari yoon kii boo ko woyee boo demee kër Gora Fall Mali ba Tóor fa la dëkk ku fa juddoo milliardaire la milliards yi doon waaye boo demee nag ndimbe ndimbe fa la dëkk ma yoro ma nga nga ndaam Mali nga ndaam jëbe Seydi Diop Almaayi Abdou Khadir Tooro Burub Gede Bël Demba Mew Demba Kumba Demba Sakal Yari Yal Demba waaw waaw kala macha allah ni woowee sa maam Karim waaw waaw Seck Maane Jaw waaw ma jeey Maane Jaw waaw waaw manu Maane Maane Jaw Maane Jaw Maane Jaw Diop ma teg ñam maam Louga nga dëkk kër Gora Fall nga dëkk Jéeri Ngoone ma Lawbe ma Samba soxna Fall soxna Jang ma Joojo dégg kont ma Samba Numbe Fall daxal bi mbuj demal ma Joor demal ma Samba Lawbe takk sa maam ma demal Fall ma jeey wàllu Birane Fori. waaw Ndete Mbooj. Amari Gaaña. waaw waaw Aram Bakar. waaw waaw ñoom ñu kun la dégg. waaw waaw parce que yaa kuy maamam. waaw waaw ma sam ma dem ba. waaw waaw Ojo. Mbir Faw waay lan waay ju dee waay Ojo. Birane Juga Si. waay Juga Sa Matar. Matar Oltu. Oltu Gànna. Bëñ Gànna. Sap Gànna. waaw Saamaan Gànna. ak léegi Gànna waaw waaw moom parce que yaa métti. waaw waaw nuyoo baa ngi noonu. waaw kay. nuyoo baa ngi tege jàll. nee man damay xantam di juddoo. man ak Ismaïla Mbaye mii di doom. ndax seen baay yeeg sama baay ñoo àndoon. mais suñu baay yeeg baayam yee àndoon. suñu maam yeeg sama maam ñoo àndoon. suñu maam yee àndoon. ñu bokk dëkk Louga dëkk bu rafet. ñu bokk dëkk Louga dëkk bu rafet. sa yaay Daba Samb di suñu lépp. sama yaay Daba Samb di seen lépp. moo gàddoon bi Binta Mbaye indi ko ba sama loxo dénk ma. nee moo gàddoon Binta Mbaye indi ko sama loxo dénk ma ko. Binta Mbaye présenté ma la. nee Binta Mbaye présenté ma mooy Fall bi ba nga yàgg ni rek. def ma xarit ma jël ko def ko xarit. boobu yaa ngi tukki ne booba maa ngi dem Italie di ñëw xam nga wayaane. xam nu ñuy wayaane. man daan may sax dalay jaaxal. yaa ma njëkk a may xaalis yaa tax ma ñeme kër yi. kon yow sama càmm yi. ne kon lan. deuxième attaque.